waaye ni nga ko defee ay pàcc waxtaan ci xam-xam indi mayu sëriñ bi ñun ñëpp suñu xol tooy nga soññaat ñu ci 17 avril bi soññaat zone yi ak groupe yi ak mbokki taalu bi ci comportement bi ak doxin yi loolu day ku tedd ki daa doyul sëkk ci ay kam waaye sa mbaax ak sa yërmande tax nga joxaat Serigne Saliou Samb mi jëriñ universel mu yeewaat ñu xóotalaat yëf yi ba fi mu toll ñun ñëpp suñu xol yaa ngi nux man day wax dëgg yàlla sama kàddu moom mënu cee bari lu dul am mbégte ak cant te loolu yi kat ñun ñëpp ñoo ko war a maase def ko muy ay dàll ñu sol ko ngir dox jëm ci positif dox ci 17 avril ndax xam nga ni woote bii li ko waral moom jëmmam ji sëriñ bi nekk Bordeaux dëgg-dëgg jëmmam ji nekk fii xam nga ni loolu rek buñ ca yemoon nga xam ni li muy dox lu ko ñor la waaye yematu ci guddi gu jot mu sol dàllam ànd ak mbokki taalibe yi ngir di fanaan ci bâche yi di fanaan ci jant yi te moom mi nga xam ni moo koy ànd ak ñun lim dégg mënees su da ba dégg lu raw loolu ndax yaay man maay yow moom ak dégg mu fale yow ndax jëmmi sëriñ bi moom amul lu ko féete kaw ba léegi nag mu sol mbubbum tàllu bi di ànd ak ñun liggéey bi kon nag war nañoo xam ni loolu lu ko ñor la muy lan muy 17 avril kon li fi ne rek mooy góorgóorluwaat takkuwaat fépp fu nu yemoon ñu xeeb ko loolu te jàpp ni tàmbaleegul ñëw mu bernde la te yow ki ngay bernde xam nga ni bernde gi baax na waaye moom moo war a dukki dukki di wuti dina jox waaye gëtanoo ko ci ndànk-ndànk ndànk-ndànk nga def 15 ans def 20 ans dem ba yëg ni da ngaa war a jox addi ñëw di reyante di joxe addi te ba ngay jébbalu yàgg na xoolal patience boobu conscience am soxna sëriñ bi defal la ngay amit tout tànk say tout tànk di tudd sëriñ Saliou ak i Mame Bousso ak i sëriñ Béthio nañ xam ne loolu jomm na li ñu jomm ci kaw suuf mooy jëmmi sëñ Béthio daje gi bi doxin wi demee nii mu ne ñu dox ba yàgg sëriñ bi yeesal yoon bu yoon wi yeesee taal xeetu doxin wu yees day laajal te bi mu yeesalee yoon bi dama li yëf yi xamul ni yees nay tànn ndax bu njëkk jëwriñ yëpp ay riir maam mu jël seen i jëf wuti sëñ Béthio loolu xewatul loolu xew na kon yoon wi yees nam def mooy daa jël ay jëmm jiital leen ci kanam mbooloo mi jël jëwriñ ya daan riir ci moom booleeg ñoom ngir ñoom di riir di ko wut si moom sëñ Béthio kon yoon wi yees na ca biir loolu nag mu def dëgg dëgg moom ñu ànd ak moom yees gi muy yees lan nga ci war a xame mooy ndekete sax ñu ci moom mi ngi gaawee ci topp lëm lu lam la topp loo ak tànnam kenn du ko moyele sa tànn ak tànnam rek ngay tànn ak jàppam rek ngay jàpp lu mu bëgg rek ca ngeen moo tax nii mu yeesale daal laaj doxin wu yees moo tax dox wu yees ku ne xam na ni lii di xew mosu fee xew li nga xamee ne nag yëf yi bu ñu yeesalee yeesalal doxin fi mu ne daaru salaam laa wax daaru fi ñu toll ci jëf ay jamono boo boolee kuréel gépp réunis toll noonu foofa nekkul meneen mbooloo moo jóge ca biti ñëw jébbalu di jëf lu toll ni lañ daan jëf baalu ko déedéet mbooloo mi fi nekkoon ca booba mbooloo ma lañ xaaj benn comme benn parti bi di jëf loo xam ni mbooloo mépp jëfuñu ko woon xanaa ca nga xam ni Serigne Saliou li mu def ci ñun dëkk dëgg muy ngërëm li xamaguñ ko. faaw ñu lay tartagal ci jëf gi di la bëggloo Serigne Touba nga xam ne ndekete kattan ngi ci yow gox boo amee ku lay diri ci yoon wi da nga jëf ba jëf ji dana la yéem yow ndax kattanu Serigne Touba ci ngay jëf ndax Serigne Touba du jeex Serigne bi yii nañu nag ay njariñ ubbiwaat buntu njariñ wu yees mooy jël dëgg-dëgg jëmmam ji takkale ñoog moom boole ñoog moom kon takkuwaat moo jaar yeesalaat doxin wi moo jaar di ko siyaare fu mu toll moo jaar fi mu toll nii. bi ñuy dem Kër Maysa aleykum la ndigal loolu ñu sëriñ bi jox mmh. sëriñ bi ma wax nee na ma mmh. damaa yéem li ma yéem mooy waxuma la njëga njaay waaye oto yu ndaw la topp kat kat ya oto yi mmh. yu ndaw yi nee na man moo ma yéem barki sëriñ bi teg ci ne ma leer gaa ngi na ñëpp am waaye sëñ bi moo ne ma man jëlal naa ko kàttan ya kii amul njëriñ jaay yi la topp saa yi jëlal naa waaye oto yu ndaw la topp maanaam kàttan ya oto yu ndaw yi nee na man loolu moo ko yéem moom daan na ma ci loolu nee na ñëpp def ci liñ ci jublu rek mooy fàttaliku fi nu sëriñ bi jëlee ak fi mu sëriñ bi dañoo defal lool képp koo xam ne tey jàpp nga ni am nga njaboot am nga oto yaa ngi may yaa ngi langal caabi bureau yaa ngi may dégg yëf yi baax na yow xamoo ne la sëriñ Tuubaa ñun danoo war a takku sakkuwaat ñun ñun demaguñu fenn gars yi sëñ bi fii la toog maa ngi fàttaliku màggal daaw daaw jéeg daan ne ay gars fii ma toll nii am naa nag lu ma xam lu ma leer yéen a koy fàttaliku mu ne dem naa ba xam ne ndekke ndigalu Serigne Touba des koy jëf waaw ah, da ngeen ko fàttee ñu ne teg mu ne jamono ji ngay doon ndaw am kattan hmm. yàlla defal la ko nga mën ko jekku jamono hmm. amum xel am kattan am daal yoo sol am sa oto mën a dugg dukki dukki ci réew mi ba fexe ba jëfe ndigalu Serigne Touba yi ndekk yoo ndigal dañ dañ koy jekku ndekk ay ne ay waay gars yi jaayante leen hmm. Serigne Touba loo baax mu ngeer ko xéewalam yéen ñun rek tax mu wàcc dama ni sëñ amul jot bu ko wóoroon ni mën naa bañ a wàcc te sunuy mbir dina jàpp sëñ bi du wàcc ndax fa mu nekkoon ma nga fa ajaabani rahmaanu xablal xalqi sabaxiina alfa sanatin bil xaq lu may def ci kaw suuf ba mu yëgee ni kenn mënatu la jariñu lu may dina koo liggéeyal ca la wàcc waaw waaw. man sax ku ko toog maa ngi baax. waaw jërëjëf jërëjëf. jongante yi. ah damaa tëraloon ba pare teg jiwu ma ci dara. waaw xam ngeen ni kat parce que Guédiawaye Chine. jërëjëf calendrier moom dara teg ci guut. waaw zone caaro yi caaro yi. dëgg yàlla waaw moom jàmbaar la dëgg yàlla dëgg sëriñ Faye toll nii moom it Aliou bi muy doxee moom kéemaan waaw sëriñ Faye daal moo moo moo ñu nekk waaw sëriñ Faye moo ñu nekk mais kër yi de l'universel ñoo bu baax ci di waxee mu yëgloo ma ay dimbali ci ngeen ñuy dimbali ñu nekk ci liggéey Serigne mel ni kat lii ngeen engagement soxna yeeg ami doon loo xam ni da ngeen ñu cee dimbali ku bëri ñu ñu ciy mën di jariñu ci Serigne bi. ndax la nga jël Serigne Saliou wax la ko ngay doxee ak ñoom parce que Serigne Touba mu mel ni nga woowee ku jëfu coxeel te universel sam waxtaan ci léegi ci lu mel noonu mu mel ni coxeel boo ci nekkee doo yëg métti te yow nga wooye falal ñu ba nga xam ni ñëpp dañ koy àttal ndax toog nga ne xeebu ma sax cent franc te ñun ñëpp kenn ku ci nekk ñàkkoo parce que Serigne Touba muy mel ni fi mu nekk li may woowaat sama gaañ rek mooy